ak yeneen yu bari yoo xam ne mëne su koo nett bi loola yéene won na ko am ñu waxoon ne damaa bëgg ngeen waaj gunge ma ma siyaare ji sama soppe ba sallallahu alayhi wa sallam bi ci topp mooy tabax jumaay Touba moo ko digle woon wax ne murit bu ko man na nga ca def nit ak juróom-ñett muy ñaar fukk ak juróom-ñett te jamono yooyu booba tànk lañ doon wax ak waaye dërëm sax daawe su ko wax bu ak tànk lañ doon wax booba xaalis rek bari woon na mu jamono yi murit yi booba li ñuy néew ci lim lépp lépp dajale woon nañ juróomi million ci teew ci teewaayu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu loolee la Cheikh Moustapha al Karim tàmbalee liggéeyub jumaa ji waaye la ca xew jàng histoire xam nga ko entrepreneur bañ daan wax taler yi mu gëjëloon ko lam ca lam ca xewal xam nga ko waaye li lay xamal ne xaalis amoon na solo booba avance de démarrage six cent mille francs la laajoon waaye boole ca nag ne dañ koy fay salaire soixante mille francs par mois liggéeykat nga xam loolu la ci la ci kon loolu bëgg-bëggub sëriñ bi la woon moo ko woon jumaay njaaree moom moo ko tabaxaloon boppam waaye ñetteelu mebet mi nag wala bëgg-bëgg bi mooy tabax ab jàngukaay boo xam ne fu nekk nit ñi dañ fay joge di jàng si xam-xam bu am njariñ mboolem ñi ko mat a ak ñim yaraloon boppam ci loolu lañ nekkoon tàmbale ci Cheikh Moustapha al Karim moo njëkk a indi Cheikh Habibullah fii ci tubaa mu fiy jàngale xam-xam bi jumaa ji noppee itam Cheikh Mahamadul Fadil alhaaji Serigne Bousso ak alhaaji Serigne Dame Bousso ak sëriñ As Jaxate mii fi ne ba ne ba tey jii ku ci ne moo la indi woon ci fi ñuy wax daarul maarifil islamiyya ci jumaay Tuubaa nga di fa jàngale xam-xam kon fii dëkkub jàngukaay la boo xam ne noonu ko sëñ bi sañcoon ngir loola moom lañ doon wéyal mboolem njabootam gi nga xam ne tooge nañ ab jataayam loolu lañ doon wéyee ñi jotute tooge ab jataayam itam ñoom ñëpp ci loolu lañ doon def daara sëñ Chouaïbou bu ngi nii ci wet gi borom xam-xam yi ëpp ci dëkk bi wala ñu bare bari ci réew mi fa lañ jaare foo dugg ci dëkk bi daari alxuraan nga fa rawatina Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ne ab liggéeyam xam nga fii mu ne ay école lu mat ñett euh, quatre-vingt-quatre mille donga ña nga fay jàngi xam-xam kon nag Cheikh Mouhamadoul Mountakha bi mu ñëwee Cheikh Abdoul Ahad nag mi nga xam ne moom moo sa moo taxawaloon barab bii taxawal daaree kaamil moom kon kon waxaale su ko Cheikh Abdoul Khadir noon ñoom ñëpp loolu moo doonoon seenu doxin waaye Cheikh Mouhamadoul Mourtada bi mu ñëwee Mountakha wax ne nag fi waajuram yi jaaroon magam yi jaar fa foofa la bëgg a tàmbalee moom ab liggéeyam ndax liggéeyam sëriñ bi du mat waaye wàllu gu ci ne dox nañ ci jéego yoo xam ne sori na lool mu ne moom nag liggéeyam fii la ko bëgg a tàmbalee ci yar ndaw ñi defar leen te loolu kat moo fi indi woon yonent yi alayhimu salaam ñoom ñëpp loolu moo doonoon seen mission rawatina nag sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne dafa wax ne man dañ maa yónni ngir ma jàngale innama bu'istu muallima wax itam ne ki gën ci yéen métier mu muy jëfandikoo wala ki gën ci yéen mooy ki jàng alquranul karim te di ko jàngale xayrukum man taallama alqurana wa allama te alxuraanul karim mooy xam-xam ndax mboolem xam-xam yi am njariñ ci àddina mi ngi ci biir alxuraanul karim Cheikh Mamadul Muntaxa nag bi mu toogee rek mu wax ne liggéey bii moom ci la bëgg a tàmbalee ay liggéeyam moom dongit la am ci yitte lu mu mën dana ko ci def ànd koog mboolem jullit yi rawatina mboolem njabootu Cheikhul Xadim radiyallahu anhu mu wax nu nag ne nañ ko ci xalaatal keroog ba mu nu wooyee wax li mu bëgg dañ ne noonu bala noo tàmbali liggéey nañ xam li ñu sëñ bi defloo ba noppi ñu woote ab jataay boo xam ne waxam ju tedd jam waxoon moom lañ déglu nun wax mbooloo mu bari ku ne ñu la déglul waxi sëriñ bi li nga dégg nag na nga ko bind ñu bind ko tënk ko ci ne daal moom projet pédagogique la bëgg wala système éducatif islami muridi système éducatif boo xam ne système éducatif islamique lay doon waaye tënku nag ci njare njàngalem Cheikhuna al Xadim la anhu mi nga xam ne dafa def synthèse borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon mboolem borom xam-xam ba fi mas a jaar indi am ngir ci diine sëriñ bi dafa jël la nga xam ne mooy la ci ëpp solo dajale ko def ko moom muy projet pédagogique wala muy système éducatif boo xam ne moom la jàngale sëriñ bi ne kon nañ ko ko jàngaleel di tàmbalee ci kii dal basin ba ca njobaxtan la basin mooy ki soog a dal njobaxtan la mooy agrégation jëm kaw ñu tënk ko nag ci juróomi wàll yu bokkul bi ci njëkk mooy njàngaleem alxuraan ndax loolu moom mooy alali sëriñ loolu moom mooy tënk mboolem xam yi nekk ci àddina yi am njëriñ ñu def ci daara alxuraan joo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ñu waxal ni mu ko bëggee ne nañ tàmbalee ci mag ñi nga xam ne seenu ñoo àndoon ak sëriñ bi seenu njaboot seeni sët ak seeni sataat ñu tànn ci lu mat junni nit yoo xam ne dañu toll ci dal alxuraan ñu dalal leen di leen jàngal na mag ña daan jàngale di leen yare na mag ña daan yare nga xam ne bu ñu bu ëllëg si aw jiwu la ñu doon woo xam ne danañ mën a dem wër àddina bi jab bi tasaare njàngale moomu ci àddina bi ndax lépp njariñ boobu nag tënk nañ ko ba gone gi fi mu dalee baasiin ba fa mi mokkale alxuraan beqi beqi mooy bind ko ci àlliwa di ko mokkalaat ba bind kaamil loolu lépp tënk nañ ko waxtu yi mu war a nelaw yi mu war a fo yi mu war a jàng yi mu war a bër yi mu war a seet ak njabootam yëpp tënk nañ ko ci juróom-benn at xëy na mu ëpp ko tuuti waaye dañoo gis ne lu ko lu ko weesu gone gi xelam du mën a gën a jàpp dëgg-dëgg te bëgguñu mu sonn bu ko defee loolu mooy njàngum alxuraan mi moom fi mu nekk nii tënk nañ lépp ba noppi bi ci topp nag mooy njàngum majalis mooy xam-xamu diine bi nga xam ne moo nu sàmmal xam lislaam ji Sénégal ba mu yegg si fii te sëriñ bi daan ko jàngale daan digle ñu di ko jàngale ñu di ko jàngale ci dëkk bi moom itam dañ koo def dañ ko dañ ko nag dëppaleeg jamono laay wax ndax li ma waxee sëriñ bi dafa def synthèse u xam-xam yi am njëriñ yëpp ci wàllu diine waaye dañ ci yokk nag yeneen matières yoo xam ne baaxoo wuñ ko woon a jàng ci njàngum cosaan fii lu mel ne ay mathématiques lu mel ne ay ay ay ay ay yi ay science sociale lu mel ne ay yeneen yu bare bari ay fa waaw dañ ko ci dugal bu defee ki ci génne tam day am diplôme day am premier niveau deuxième ba troisième mu ànd ak diplôme boo xam ne niveau licence lay doon ñu def benn école intermédiaire ndax gis nañ ne gone yi fii macha allah dañuy teel a mokkal alquran te may na leen xel yoo xam ne luñ bëgg a jàng mën nañ ko jàng bu ñu leen bëggee dugal ci école yi ñu def cursus normal bi yàgg dañuy tàyyal sax ndax ñu gone xam ba noppi du sawaab ñu leen ko fu ñu waroon def ñetti at fu ñu waroon def lañ koy jàng ñu ngi koy expérimenté gis nañ ne mi ngi am réussite école yi koy def fii seen euh, xale yi bu ñu demee présenté wu ci CFA daanaka ñooy jiitu waaw léegi beneen bi itam mooy beneen euh, bi ci topp mooy euh, école yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi muy programme éducation nationale bi nga xam ne ñu ngi koy jàngale ci Touba école yi Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma école yi Cheikh Mouhamadoul Mourtada yi gis nañ ne njàngale mi ni jàngale baax na mooy njàngalem éducation nationale waaye dañ cee bëgg nag tënk nag dugal nag njàngalem l'islam ndax ci Touba gi mu nekk njàngale moo xam dañ koy tibbee ci njaam ak dem Sëriñ Touba ki fi jógee dana am diplôme bi waa éducation nationale am waaye itam nag dana am lu am yokk ñu demee ba ci université bi nag ñu def ko ñetti xaaj bi nga xam ne njàngaleem lislaam lay jàngale mboolem lu ñu daan jàng ci université yi gën a mag te ñu doon tëral programme bi ñu ci ëpp foofu lañ jànge dugal nañ ko ci biir waaye def dëppale ko nag ak njàngaleem Sëriñ Touba nga xam ne lu waaye doon jàng ci beneen yi gën a mag bi al azhar yëpp danañ ko fi jàngale am geneen wàll goo xam ne ay UFR métier lañ koy lañ fay jàngale loolu professeur Lamine Gueye dafa am ngant waaye professeur Mor Faye teewal na ko fi ak professeur Thioub bu université Cheikh Anta Diop ñoom lañ ci àndal jërëjëf waaw yooyu nag boobu noom tam loolu lañ ko def métier yi gën a am solo nga xam ne nit ki bu ci génnee dafay daal di mën a opérationnel yooyu lañ fi bëgg a bëgg a bëgg a jàngale sëriñ bi daal dafa wax ne bépp xam-xam bu am njariñ nañ ko fi nañ ko fi nañ ko fi nañ ko fi jàngale waaw am na ci alxuraan ji ak ci ak ci université bi am na waaw am na ci am na dañ leen di beral seen wàllu bopp am na nag ay bokki taalibe yu fi def liggéey bu am solo ci Cheikh Abdoul Ahad ka mii ni mi def dafa am ñoo xam ne dañoo ñëwoon ci sëriñ bi wax ne dañoo bëgg a jàpp ci liggéey bi mu tudde leen taliatul muridiya sëriñ Bay Sarr lañ def seen jawrin moo leen fi teewal ñoom ñoo sasoo hmm. Hmm. ñoom ñoo sasoo li aju ci daare daare al alquran ji kon moom laa la doon dënk ñoom tam ñoo ko sasoo juróom-benn milliard la ñoom ne nañ incha allah caabi la ñuy jox sëriñ bi waaw moom eh, équipe bi nga xam ñoo def ñoo doon def programme pédagogique bi tam man nañ ñeenti téeméeri nit eh, université yi nekk Sénégal nag lañ ci jiital ndax ñoom ñoo xam njàngum réew mi professeur Thioub professeur eh, Lamine Gueye professeur Mor mi ngi fi teew ak ñoom ñi Euh, waaye am na nag ñu nekk ci bitim réew ci université yi gën a mag ay taalibe Sëriñ Tuubaa nga fa yoo xam ne ñoo dégg projet bi wooteel seen bopp Harvard University Cambridge ak euh, damaa jëlee la Sorbonne nag yooyu waaye ku ci nekk wax na ne moom waxuma la bokk ci liggéey bi waaye bu noppee mën naa ñëw di ci jàngale te ñu def enseignement à distance nga xam ne li ñu soxla dañ mën a nekk fii di ko jàng foofa loolu daal ci tënk yóot bi bees yi waaw ndax UFR yi métiers yi waaw léegi defoon nañ benn rapport de synthèse boo xam ne ñu waxtaan ak Cheikh Amadou mu ne mën nañ la koo mën nañ la koo mën nañ la koo jëbbal mbégte ndax daanaka si juróom-benn weer batiment yu toll nii génn université bu toll nii ci li muy jar euh, doy na kéemaan wax dëgg yàlla euh, ñu ngi sant sëriñ bu baax a baax sant taalibe yi nga xam ne seen taxawaay rafet na ndax lii ngeen fi wax ay volontaire ñëw jël ay batiment yu toll si juróom-benn milliard ne dañ ko ci dugal si seen alalu bopp loolu tam lu jar a roy la loolu mooy liggéeyal sa réew liggéeyal sa diine liggéeyal sëriñ ñoom it ma sant leen bu baax sant entrepreneur yi sant ingénieurs yi mais aussi sant leen sëñ Amadou Badiou bi nga xam ne sëñ bi teg na loxo bi ci wàllu pédagogie université bi ak concept bi nga xam ne noonu ngeen fas yéene daara ju mag ji di ko doxee surtout nag li ci gën a kéemaane tam mooy tàmbalee ko ci ñi gën a ndaw ba fu njàng xam-xam di toll loolu dafa am solo ak ni ngeen ko xaajee ay pàcc vraiment jar na jar na jàppale bu baax a baax wàllu métier itam maa ngi doon wax ministre de l' ak Dame Dame Diop ministre bi nga xam ne moo yor wàllu xara liggéey formation professionnelle dañu dama doon laaj sëriñ bi ndax damay def ci département bu ne benn daara bu mag ci wàllu métier boo xam ne gën ngaa néew milliard ak lu topp dana ci dem pour fu ñu jàngale gone yi métier loolu tombe na ak lii ma gis fi ci wàllu métier yi kon loolu it mbake ak Touba waroon nañ ci am mën nañ ko ci ndigalu sëriñ bi def fii su ko defee loolu dina mën nekk luy tàmbali tam ci teel en tout cas ñu ngi sant bu baax xam naa bu ñu yeggee sëriñ bi ma mottali cant googu la mais daal li ma fi gis moom dëgg-dëgg dal na sama xel te dafa méngoo it ak li may santaane ci nguur gi muy liggéey bu gaaw waaye bu bu sell bu baax ñu tuddee ko fast track mooy lii liggéey boo xam ne ñëpp dañuy taxaw laxasaayu liggéey guddi liggéey bëccëg te lii ngeen fi wane mooy loolu war na mën a am kooku nag Sénégal yëpp war nañ si roy kon maa ngi sant aussi entrepreneur yi ñoom Abdou Lahad Ka ak ñoom ñeneen ñi fi nekk moom mi